maanaam fekkiwul ay kilifaam dañ ko doon dicté. non Samba moom kenn mënu ko teg pression. Samba Sall bi ma xam man xanaa mu ne xanaa mu ci diggante bi. ah ñu doon ñu doon gis ñu ne Sonko moom defaraloon nañ ko cellule lépp wala. Ah, mais xam nga waxoon nañ fi sax waxoon nañ fi parce que fii moom c'est un pays de waxoon nañ fi wala dégg naa. Mm-hmm. ne Macky Sall ab Wade da nga ko doon préparer une chambre à Rebeuss waxoon nañ fi it ne Idrissa Seck lii wëgg la donc. allah yéen li ngeen yéen li ngeen jokkoo laa wax ak sa cousin li nga jokkoo ak doyen des juges laa wax mhm. man. yéen loolu déggoo leen ko woon. maanaam moom mi ngi dund pression laa wax. mais pression bu métti samba pression bi mu doon dund doomu aadama antanu ko. mu jógee si nguur gi. partout. xam nga nga am pression du pouvoir. pression des collègues pression de la famille pression d'un peuple parce que ñëpp a ngi doon séentu waay waay waay waay waay nañ ñu dimbale ngir yàlla jàmm am ci réew ndax jàmm la Sénégal xam. mu nekk ci loxowu benn nit nga war a yow tous les jours xamuloo ndax boo génnee sa kër di nga dellu siwaat pour fekk ci sa njaboot dafa métti rawatina nag ci réew moo xam ne nii on a on vit dans un pays boo xam ne nii c'est un pays où il y a pénurie de discipline nit ñi dañuy génn di wax lu leen neex sans même savoir la personne bi ñuy waxal kan la Samba Sall dem na ba wax ay mbokkam mhm. ne leen daal moom moom moom nguur gi sax la gën a ragal à quatre vingt pour cent que l'autre camp loolu dëgg la il ma laa confirmé yow mi man mii di wax ak yow il ma laa confirmé man ñaanuma ku dul Samba Sall sax du ma wax ci moom lu dul dëgg muy dund ak muy dee mu ne benn instant nguur gi la gënoon ragal sax il m'a fait savoir que mhm. moom il a beaucoup plus peur de l'état de l'état que du camp de Sonko Parce qu'un État est trop puissant et ils ont trop de moyens. ñu ciy waxtaan di ci waxtaan bay dugg ci le cas de commissaire divisionnaire boobu ñu fi yoon au temps Cheikh Sadibou dañu retrouvé woon la comme au Mamel ak euh, maitre Babacar Seye ba ma sax ma ko ci dox d'autres exemples ne ko am na fi sax o Maroc le cas de Ben Barka bi ko Assane II di faagaagal reyee wuñ ko biir Maroc ñu ngi ko reyee en France ñu waxtaan ci sax ba ma joxaat ko sax beneen exemple bu princesse Diana ñu ngi ko reyee ci pont de pont de l'Alma en en France ba léegi personne kenn waxu ci dara. kon bu ma déggee sa wax daal mooy yéen maanaam seetaloo leen nguur gi ci DM gi à 100 pour cent. loolu moom du ma ci dugg sañ Ahmed yàlla rek a xam parce que dafa am benn affaire bu ma gëm. Mhm. boo demee ci alxuraan nga jàng suuratul luqmaan luqmaan nekkul woon yónent mais yàlla daf ko joxoon sagesse bi muy conseiller son fils daf ne ko yaa bunaaya yow sama doom euh, innaha intaku maanaam lépp loo xam ne nii rek yàlla doomu aadama def na ko lu toll sax ni grain de moutarde nga jël ko nëbb ko ci suufu roche bu keroog yomal xiyaame yàlla dina ko feeñal kon ngeen gédd il n'est pas reconnaissant. Mm-hmm. mais Bàcc lui a rendu beaucoup de service Bàcc Sonko toog na ci bureau Bàcc man lii moom moo ma ko wax. ci entretien ba Bàcc Sonko mu abal ko mu sajaada mu julli. moom bi muy taxaw Sonko bi muy njëkk a taxaw di cité Bàcc boobu Bàcc jëlagul dossier bi. Mm-hmm. boobu doyen des juges yoragul dossier bi. bi ñu demee nag ba nga xam ne toog nañu ñoom ñaar boo waxtaan mu xamal ko ne lii confrontation bii du intérêt réew mi. boo leen ne da ngeen di déloger Macky yéen ñële jóg char yi taxaw bakken yu ci c'est le Sénégal ki perd moo tax nit ñi nañu delloowaat en arrière. kon soo ko ko waroon delloo njukkal quoi. mais il ne l'a pas fait. lu tax mu waroon ko delloo njukkal. li tax mu war ko delloo dañ koy tëj. non non parce que moom ki nga xam ne toog nga yow accuser ko. Mhm. tudd ko ci loo xam ne moom yoragul dossier bi loxoom takku ci. nga dem ba ci biir ba gis ne kii jugement bi ma amoon ci moom dafa ute avec la réalité avec la personne bi may waxal mm-hmm. mu libéré la moo tax bi mu génnee le même jour le 8 avril boobu bi mu génnee ba dem di wax il n'a pas cité Samba Sall dafa ne Macky Sall Malick Sall Bassirou Gueye léegi lu tax mu sepp ci Samba Sall est-ce que newul lim fi jógee tax déedéet boobu jógewu fi mm-hmm. boobu c'est le jour bi ñu libéré Sonko ay dara mm-hmm. le jour bi ñu libéré Sonko. le 8 ah. avril boobu. lu tax bi yoon tuddul kii Samba. waaw. est-ce que demul dafa am lu xewoon ci bureau bi lu Sonko waxul. mais li ko guidé ci discours am bi. Mhm. maanaam ni ko euh, ni ko. Samba traité ni ko Samba sermonné. ramené ko à la réalité xamal leen na leen nañ leen lutter pour le pays. c'est ce qui l'a fait changer moo tax mu am beneen gis-gis ci nit ki. moo xam ne Samba mi maanaam li ko nit ñi di waxal ak moom boobu. ah waaw li nit ñi di wax avec la réalité moom li mu constaté c' est pas pareil. déjà un de ses avocats wax na ko. d' accord léegi donc delloowaat leen nga baal ma rek delloowaat leen en arrière. ngeen déglu discours Sonko bi le jour bi mu génnee bi muy wax il n' a pas prononcé le nom de Samba premièrement li tax ma ni la Sonko c' est un il n' est pas reconnaissant euh, bi Samba deewee. am na benn mu ngi def benn ci discours am yi parce que les politiciens ils sont tous pareils c' est du pareil au même seen intérêt rek moo leen fi nekkal intérêt réew mi ñuy wax nii nekkaluñ fi réew mi seen propre intérêt lañ fi nekkal donc moom bi muy wax mu ngi wax ne waa am na ku yore woon dossier bi nekkatu fi yal na ko yàlla yërëm mais ki yore woon dossier bi il a un nom il avait un statut wala rëy na rëy boo xam ne wala iñaan na iñaan boo xam ne mënu ko prononcer wala bu ko waxee il va perdre moo tax ma ni la non à part que c'est un mystificateur man je ne suis pas là pour juger les gens wala di leen coller coller yenn étiquettes yi mais li ma constaté laa wax parce que ñàkk reconnaissance mënul weesu loolu. doo des juges nag euh, ci bi ñu leen gisee ak léegi li ngeen ñu expliqué mooy ku bëggoon njaboot la te ku te baax la par rapport rek mbax na bi ko yenn sénégalais solal ndax position gis nga tey jii nii Ahmed boo leen génnoon gis maçon yi ko doon liggéeyal wala gis ñi ko doon tere ñi nga xam ne sàmba bu ñëwaan toog fii ngeen toog ci suuf lay toog c'était un gars bi nga xam ne c'était un rassembleur xale du bëggu nit ku bon sàmba fu mu mus a dem rek xale yi dañ ko bëgg xale nitu seytaane xale du la bëgg loolu moom yaqiin la koo xam ne nag bu jogaan sax bu koñ ba bu mu bu fa daan dem sax dafay gaare otoom fu sori dox këroo kër mu dugg fa képp kuy mbokk képp kuy mbokk da ko seddeel la même chose man mii di wax ak yow tuddee naa ko doom bu bonoon duma ko ko tudde mais nit ñi nag xamuñu xamuñu kan mooy Samba Sall waaye booy wër ku baax ba romb ko dootoo ko disati. jabaram ak doomam yi ak yenn ñi ko gën a jege bi affaire bi maanaam bi mu àdduna lan ngeen dund keroog. metit xam nga nga toog nekk ci sa kër nga bàyyi ay seex yu ndaw yoo xam ne dañ la miinoon foo toog ñu ngi foo sa kaw yéeg fii épaule fii si sa kaw mbagg yi ndeysaan bëree këpp nga yeewu suba teel ci ay xale yu ndaw. ñu ne la yaay ñuy ñuy wër seen papa ci biir kër gi dafa metti ça fait jabaram moom rek la xam ba fii may wax ak yow nii boo demoon léegi seeti ko yaa ngi fekk fi mu sëgg mu ngi sëgg di jooy nekk nag nit ku jullite sa papa nag moom moom mi ko yar suma papa nee nañ ay waajuram dañoo teela dañoo teel moom dafa teel a njirim. Samba Sall dafa dafa teel dafa teel a perte ay parents am. Euh, mun naa wax sax ne daanaka xamul papaam. donc suma maam moo ko yar ak suma papa ñu dugal ko école à Sokone. Samba Sall il faut aller ngeen laaj ko xaritam yi nga xam ne ñoom la màggandoor ku mel ni ñoom Moustapha Dieng ñoom euh, Moustapha Meng. ñoom Mouhamed ñooñu ñoo xam Samba Sarr. lan nga doon dénk sénégalais rek. sénégalais yi li ma leen di dënk nañu def attention. Mm-hmm. te xam ne bakken jóge na fi ay bakken rot nañu te nañ bàyyi xel am na bakken yoo xam ne waruñu rot ci réew bu fa rotee rek problème dana am. Mm-hmm. waaw nañu bàyyi xel xool bu baax fi ñuy teg seen tànk te nañu seet liy intérêt réew mi ki ñu yaakaar ne moo yore intérêt réew mi wala boog am nañ ci moom njortu rafet. ñu jéem ko jiital. Mhm. d' accord kon si Tafa Niang merci beaucoup. jërëjëf jërëjëf. mu nekkoon nag euh, seen émission seen jotaay tey nag ñu ko doon seq si Tafa Niang moom mii nag jarbaatu doyen des juges Samba Sall dem si yàlla yàlla na ko yàlla xare àjjana. di leen jox kon dig daje ci beneen numéro incha allah. salaamaaleykum groupe WhatsApp Cité Magistrat Sud Foire man la Samba Sall doyen des juges. maa leen di nuyu ci seen tur ak sant ak leen di jégalu aussi ci eh, fajarteel gi may envoyé audio bon en fait imam moo ma inspiré parce que dama bëggoon woo certains d'entre vous que je connais mais ma ne non attends dugal ko ci groupe bi sax moo gën a gaaw bon am na ñu ma mais groupe bi sax moo gën a gaaw lu baax ci coono bi ba leen teg euh, fan yi mais du sans TF xam nga malheureusement ñu ngi ci réew moo xam ni dañ xamuñu ñu justice bi fonctionner loolu moo tax euh, tous les moyens ça a été exposé et vraiment loolu mënuma ci woon dara jël dossier ak jël décision bokkul buñ ne dossier bi diwa ko yore mais mun leen xam fan la ko ko jëm malheureusement réew mi nit ñi dañ di di manipuler duñ xam fi ñu duñ xam projet bi dem alors it waaw man Sénégal moom a ñor ñu yëpp ñoo ko bokk donc yàlla def na jeex na ci jàmm ci lima ma fokk ci li fokk jeex na ci jàmm maa leen di jéggul encore une fois leen di massa bu baax ne tension bi ngeen newoon Marie na nga def waaw gis naa sama audio tante Nafi bi ma transféré waaw kontaan naa ci baax seede yi rafet na ñaan yi yegg nañu vraiment man xaw looy wax la parce que man defalu ma ko sama bopp ñëpp ko defal ne Sénégal moom ñëpp a bokk ñëpp a moom waaw mënu moon def ne lu may nii jërëjëf jërëjëf heureusement fi ngeen ma doon xaar yéen ñi ma xam fa ngeen ma gis ku ma xaar feneen tam ah, yaa xam mais man daal fi ngeen ma doon xaar te ngeen yaakaar ne fa laa jëm heureusement ma jëm fa. waxal ma sama tante ne maa ngi koy nuyu di ko gërëm di ko sant seede yi rafet na jërëjëf jërëjëf jërëjëf.